am mbégte rek euh, teewaat fii waxtaanee li nga xamante ne mooy euh, euh, tamxarit tamxarit nag ñu gën ko xamee ci Achoura tamxarit buñ ko waxee ñun ci Sénégal gi dañu taamu di togg cere. ñu ko waxee woon keroog rek nee na cere baas yi la ñuy togg ndax cere jooju joojule dañ ko daan dem jëndi dugub ji ca marché ba daal di ñëw sebet. daal di yóbbu ci machine ba ñu daal di wol daal di mooñ daal di tey daal di laalo te euh, ingrédients yu bëri yu nga xamante ne ñu ngi koy def ci jamono ji cere ji euh, mm, damay ñaan rek ñu wàññi ko. Mm-hmm. ndax euh, léegi presque kenn wératul libaas kenn wératul te ba pare itam ñu def ko nu mu gën a yemee rek. bañ cee def diwlin ju bëri léegi dafa tàng nit ñi dañoo feebar et ba pare tamit ñu teel a reer. teel ko taal teel a reer ba ñu bàyyi ba ay vingt deux heures ñuy soog a taaj reer bi euh, te cere jooju itam euh, jamono ji ci marché bi marché bi metti na mhm. marché bi metti na légumes yi cher nañu léegi mu cher nañ lool sax wax dëgg yàlla euh, ñu bàyyi xel rek dëgg la jamono ji période du nawet la. yu mhm. bëri du am waaye tamit askan bi tamit bu fekkee ne dañoo soxlandoo ñu wàññi seen loxo parce que itam loxo yëpp jotuñu gannaaw. te eh, eh, bu lu kenn mën ñaara ko ko dàq. Mhm. bu ñetti jàppee day gën a yaatu rek. ku nekk bañ a beru parce que jamono jii dañuy seetlu ne beru dafa ci bari mais bu fekkee ne yow li nga am doyul nga daal dem bokk ak ki nga xamante ne moom nga bokkal kër. defe naa ne day gën a yaatu rek. Mhm. te ba pare itam mm, ñu am taxaw seetlu ne euh, jamono la joo xam ne dañuy bëgg di soli def maanaam solidarité. ak euh, suñu mbokk chrétien yi nga xam ne bu ñu amee bis ñoom dañuy sédd. Mhm. ñun tamit euh, nañ leen sédd comme niñ leen defee rek waaye li nga xamante ne ñu tibb dem yàkkalaate ji waat kër gu ne bu ñu toggee yàkkal bi est-ce que jar na ko soxna. Ah, ah, mënta ñàkk set ndaxte am na am nañu defar nga lax daal di joxe am nañu ah, defar mais saf na xam nga bu ñëpp toggee mhm. mais yàq balaa moo neex ñëpp bokkuñu def ko nga togg lu neex daal dem yekkal si goro wala nga yekkal sa njëkki mhm. mais dañ ko aada rek gis nga aada ji fi mu nekk nii dafa bi jiital rafetal dëgg la de moi je pas contre mais dafay am jamono yoo xam ne bu ñu ca tollee nañ xoolaat suñu bopp mm-hmm. parce que nag euh, ne ne aada ji aada ji topp ko ba daal di lay lox mm-hmm. day métti di nga def ba pare sax ñëw song sa yaay jox ma. aada ba yaay jox ma. <laughs> aada bi ba cher aada bi moo cher. te léegi presque góor yi tamit ñuy def lu nu mën. ñuy def lu nu mën. aada Sénégal coûte cher. coûte moom dëgg la mais ñun dañuy def loo xamante ni si dañuy def lu ëpp parfois parce que ah, parfois da ngay gis ay cere yoo xam ne. Mm. dañ ciy def lu ne. amul ah. benn njëriñ dañ ciy def saucisson dañ ci merguez daal di def ay problème daal di koy waaw daal di koy bomb ak sama classe bi amee estomac mais duñu dañu survivre dañuy ba pare cere cere ñun ñun suñ cosaan euh, pas cosaan sax ñun Louga euh, buñ daan julli timis ba pare ñu këppee dañuy reer. mais fii da gis ñoo xam ne dañuy toog ba guddi. 3 heures du matin këpp mi ngi am ba tey ah. bien sûr yëpp ba de këpp nga du seen du mariage. waaw kay ah yàq nga dëkk koñ ba nga dëkk. am na ki nga xam am moyen bu mu ba nga yóbbal kenn kenn ne bu génnee yàqam andi jox ko dana tam xarit comme ñëpp loolu moo ëpp njëriñ que ngay na solo kon nag da ngay def ni bàjjen jéefaal nga xamante ni nag moom dafay yàqalaate xamante ñoo di néew di doole yi ñor ko lool mhm. ñëpp ñëpp waaw ah. waa nga ma ngéew Fall Ndiagara moom <laughs> <laughs> ñu di ko nuyu au passage tuuti moom itam euh, soxna Fall ñoo bu baax a bi lay xaar dugg nga sama biir de <laughs> waaw eh, boobu moom yàkkam moom macha allah mm. moom day sax da koy def moom mu ñu ci séddu ñit itam mm. euh, suñu jabar jooju rek dañuy ñaan yàlla euh, mu dund ba fekk njëriñu jabar bi moom day tuuti macha allah mm. waaye ñu dellu si waat li nga xamante ne mooy cere ji cere ji tam xarit ji am na ñoo xamante ne tey jii cere baase lañ ci doon taamu sax waaye mhm. comme jamono neexul nañu wàññi yëf yi mhm. nañu wàññi yëf yi ndax boo demee ci marché bi dugg mu seer na te it nag ñu wàññi laaj bi léegi mhm. sax jigéen ñi presque laajatuñu waaw te li baax sama seetlu ne ren jii. Mhm. am na ay quartiers yoo xamante ne tong-tong bi ñu daan defal nag yi. waaw di sédd. ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci quartier bi. presque du ñu am. man affaire boobu jaaxal na ma. ren ah, bariwul boo xëyee ñu ne mhm. mbas mee tax. Mhm. waaye loo xam ne ñaar ni ñetti nit ñoo koy jël. mën nañ ko organiser ba. ñaar ni ñetti nit bu ñu amee nag bi daal di koy rey. daal di koy eh, eh, maanaam séddale ko. ku ñëw indi sa ñu defal la parce que ndimbal li. même bu dekkee ne rassemblement la nii bañ. nanu jël koppar jox ko ñi daan dimbali. dëgg dëgg ñu dem jëndi ndawal. Ah. dëgg la ah. moom. Hmm? dimbali ku dajaloo yéen da nga waaxu dem marché ah. dimbali sa bopp. ah te kilo yàpp mi ngi jël juróom benn téeméer maanaam 300 francs yow léegi bu ñu la joxee benn ñaari junne ne demal dugg ci tam xare xam nga hmm? day métti ci jigéen. Hmm. waaye jigéen ñi togg ñu toggatu ñu gàcce ngalaama ñun jigéen ndax bu ñu joxee bu ñu joxee dërëm teg nañ ci juróomi dërëm bu ñu joxee ñaar fukk teg nañ ci junni kon léegi macha allah kenn laajatul kenn dañuy defar rek kon yàlla leen yàlla sàmm yàlla jàppale di leen ñaanal yàlla ñu euh, dugg ci jàmm ak salaam kenn bañ cee sonn boo ci jógee kenn bañ cee am ay bor ndax def boru ci ngir dëgg def lu baax wax dëgg yàlla bi gi la aada bi seer na de trop <laughs> aada bi seer aada dafa seer parce que da ngay gis koo xamante ni man tibbale bool yi tu xamante ni day dem tibbal koo xam ne moo ko ëpp moyen tout foofu c'est vrai que euh, suuxa relation defar baax na et tout et cetera mais yàq bi c'est trop parce cere ji ñu jël chargé ko ba mu fees jox ko nit ki ba pare ñuy lekk bi metti mm. teg ci meew bu metti bi bëra dëpp xëy doo séntu Mariama doo ko gis boo teelul yow da ngay guddee Aïcha en tout cas maman Aïcha amoon na solo lool ñu bàyyi ci xel ñu ndaw yi dafay baax mag yi di ñu fàttali li nga xamante ni moo lii woon démb ba tax ne lii di tey mën a rafet ba tey te nag à toute situation il va il va falloir savoir mm. s'adapter mm.